jërëjëf Alaaji Pape mhm. maa ngi tàggoo woon mhm. keroog ak euh, téléspectateurs yi ci julli gi nga xam ni moom mooy julli tàkkusaan mhm. mais Alaaji Pape julli gii may jàngale tey moo tudd salaatul maghrib salaatul maghrib mooy julli timis maghrib julli la goo xam ni alaaji paap dafa gàtt ñetti rakka ñetti rakka la am na ku doon laaj naan su fekkee dangaa amee boru tàkkusaan maanaam yow julli woo tàkkusaan nga ñëw fekk ñuy julli timis nga ni comme timis dafa gàtt est-ce que damay ñëw julli timis ba pare wala damay dem fay sama takkusaan ba pare. Mhm. doog a julli. man loolu daf may dal sax souvent da nga ciy da nga ciy réer. te te te dégg naa timis dafa gaaw. timis dafa gàtt. waaw dafa gàtt plutôt. léegi comme muxtaaram dafa gàtt alaaji Pap mhm. am na ñu naan boo ñëwee di di julli si timis am na ku ko laaj ne ndax boo ñëwee di julli timis te nga amee woon boru tàkkusaan mhm. da ngay profité ndax li ñu ni daa gàtt julli timis mhm. boo paree fay sa bor wala mhm. da ngay fay sa bor ba pare mhm. doog a julli timis euh, doguma la am sama ñaari xarit yu baax xadi ak borom këram albamba loo gis ma yore ci kaami la course bu rafet rek ñoom ma koy defaral dañ ma koy commandeel ba turki ñoom xool nañu sa sijaada bi mu mokk saf ndox kenn xamul dañ ko dañ koo ot sawel kenn xamul dañ koo bulo ñoom nee nañu jël nañu décision jël nañu décision à partir de jeudi bii di ñëw incha allah dinañ la may euh, sijaada bu murite. Oh. parce que sa bii bii bi dafa xàll. <laughs> donc ko fóota fóota fóota fóota fóot <laughs> ba mu saf ndox. <laughs> ah yàlla na leen yàlla jox ca tapis. ñu ne tegal nañ la ci kaamil personnalisé. Ah. yaay wax nag luñ ciy bind. bu la neexee ñu bind ci Seydi Hadj waaye yoo xam naa da bëgg ñu bind la ci faala donc jërëjëf. jërëjëf euh, naaru al bamba yaayu cheikh bamba pap yàlla na leen yàlla fay allahumma amin yaa oustaz yàlla jox leen ci tapi aljana ya allahumma amin ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaaji su fekkee da ngaa amee boru tàkkusaan mhm. nga ñëw timis jot mhm. li muxtaaru timis di gàtt-gàtt lépp ku am bor du leb ah, bor du am rakk déedéet même bu fekkee da nga amee tàkkusaan même bu fekkee muxtaar bi jeex na. lu mu gàtt gàtt dangay dem nga fay sa tàkkusaan ba pare doog a julli timis mais tem nga fay tàkkusaan bi muxtaaru timis bi jeex. du ci dara du ci dara ah du ci dara d' accord. xoolal mhm. ci julli. Mhm. julli julli gi ci kanamam. Mhm. mënta nekk. saa yoo amee boru tisbaar mënoo julli tàkkusaan te fayoo boru tisbaar. saa yoo amee boru timis. mënu boru tàkkusaan mënoo julli timis te nga am bor ci ginnaaw kon bañ muxtaar bi raw la nga julli timis doo nga fay tàkkusaan bi erreur la déedéet da ngay dem nga fay sa tàkkusaan ba pare soo fayee sa tàkkusaan ba pare eh. doo nga dem julli timis yàgg naa juum de c'est dama am sama benn mag boo xam ne ibaadu la Ibu Diop njaay France la ne Ibu daal moo jékki-jékki rek dëddu àddina maanaam moom bu ma woowee comme tubaab la allo t'as pris Camille est-ce que def nga sa prière bi comme il faut. mais Pape euh, xam nga julli timis man moo ma jàngal ni bor du fekkante. bor du fekkante alaaji Pape. te njuumte ci julli dafa sewu saas. mais Pape mais nag est-ce que xam nga ni Pape di julli juum réparé ko ci biir julli gi moo ëpp tiyaa ba ngay julli sëlmal tàmbaliwaat. ah d'accord dégg am na ñoo xam ne bu ñu doon julli suñ juumee ci julli gi rek dañuy sëlmal salaamaaleykum salaamaaleykum liqaamaat pour julliwaat. ñàkk xam parce que dañuy jàpp ni julli bi yàqu na donc defaraat julli entier mooy gën ñuy ñab ñabal boobu. julli mënta yàqu. définitivement ba kenn mënatu koo réparer lu dul ni. dëgg la xoolal mhm. lu dul ni. Mhm. dangaa tay taylu répété fatiha ñaari yoon wala nga bàyyi farata bu kenn mënta sujootal farata xam nga kenn mënu ko sujootal soo bàyyee farata julli gi day yàqu mais bu dee yu sew sewaan yi nga xam ne ay sunna la xam nga li ma la wax yooyu mën nga koo réparer mhm. léegi nag nga juum bàyyi sunna réparé ko ci biir julli gi moo xam baada salaam nga war a sujjóot wala qabla salaam nga war a sujjóot mhm. fexe ba xam ko réparé ko mhm. moo ëpp tiyaa ba nga sëlmal ne mënatumaa julli donc bor moom du fekkante ala kulli yàlla déedéet bu ci kenn juumati mhm. léegi nag Pape boo ñëwee di julli timis wax naa la ni la taxaw jàkkaarloog penku naan maa ngi yéeney julli timis ci farata yàlla ak sunna si yonent bi di ñaan yàlla xaw ma lan ak lan ak lan di ko wax ca kaw ñu koy dégg daganul kenn du yéene di ko tudd yéene kenn du ko dégg pap suñ la laajee lan mooy yéene neel yéene mooy lu amul son amul son yéene amul son parce que yàlla xam na li ci xel yi soxlawul nit ñi di ko dégg mhm. yéene rek xola pap mhm. mhm. yéene mooy ponk jaamu yàlla boo xam ni amul son te mbir moo gis boo vérifier farata yi da ngay fekk yéene bokk ci mais kenn du ko tudd amul yéene naan maa ngi julli timis léegi nag pap boo ñëwee di julli timis fi nga yéenee xolal mooy booy kàbbar na ma la ko waxee woon loolu jàngal nga ñu ko ba pare sauf pour tàkkusaan bi ah sauf pour tàkkusaan non non fi ngay dugal yéene bi ci tàkku tàkkusaan mooy booy kàbbar waaw booy farata yëpp ci kàbbar lay duggee ok ok xoola hmm. allahu fan laa la waxoon ni la ni la ni la ni la sa loxo yi foofu lay tolloo damaa bëri ay soxla ba loo moo wax jeudi balaa alxamis bee ñoo ma fàtte répété ko bëri problème waaye àdduna bu naqari bi inflation la ñu ne nii mondial fi mu dépasse la taille damay fàtte mais defe naa ci mbagg yi nga waxoon ci mbagg yi lay toll ci mbagg yi laa waxoon waaw ci mbagg yi nga waxoon mais li ma lay jàngal sax est-ce que yaa ngi koy yaa ngi koy yaa ngi koy <laughs> taluma dara ak orange mu ne <laughs> mais d'accord naa nangu naa waaw <laughs> ma lay poser benn question waaw demal Aïcha soo ko tontuwul uh-huh. soo ko tontuwul mm-hmm. awma temps bu may yàq di fi ñëw chaque jeudi di jàngale ok te li ma lay jàng doo ko dégg jamono neexul Macky nee na wàññi na lu bi mais dafa tuuti lim ci wàññi ay vingt cinq mille <laughs> loo ma wax jeudi fii lay du génn fii boroom kër yi jàppatuñu dara koo ci romb day waxtu ma mu saf sax fekkatuñu ci suñu biir kër yi léegi waxal jàngalaatal ma wala nga posé ma question pour tester ah, ma léegi dama lay teste waaw soo tontuwul question bi mm-hmm. jaratul may ñëw jeudi parce que man awma temps bu may yàq di jàngale ku dul dégg. xam nga Bouba Ndour Iran Ndaw lay jël rek teg ko fi ñun amuñu problème ñun waa TFM <laughs> ñun TFM ñun amuñu problème bato dem rek bato costé <laughs> te man xam nga ni ragaluma loolu man am naa fituk ñu jox ma antenne bi ma waaraate. <laughs> bu fekkente ni bi nag tontu nga question bi. demal. léegi man maay toog foofu yow nga toog fii. ma jox la nga dawal deux jeudi yoo xam ne yaay waxtaan. oustaz kon dinaa fuy de. faratay njàpp ñaata la. set juróom-ñaar la. dawal question leen yéen seen biir kër yi ma xool ndax ay ngeen comme man. faratay njàpp. njàpp set la. juróom-ñaar la. d'accord loolu mooy faraidul wudu sabaa. incha allah faratay njàpp juróom-ñaar fa fa kay fal xaal. léegi bul lim juróom-ñaar ok léegi demal. wax ma ci rek ñett. Mhm. ah. wax ma ci ñett. ma wax la ci ñett. juróom-ñaar yëpp laa lay wax Fall. non non non may ma ci ñett rek da ngaa bëri tiitër nag. banqal sa baaraam. waaw. yow saas. bu njëkk bi mooy yéene. <laughs> bankaatal sa baaraam. waaw. farata bi ci topp mooy raxas sa xar kanam. dëgg la wa xaslul wajhi bankaatal sa baaraam bi ci topp ah. te waa dugal publicité doog ko annoncé mooy raxas sa ay loxo boobu mooy ñetteel bi raxas sa ñaari loxo mooy troisième farata bi soo buggee ma yeggali ba ba set ba juróom ñaari yam ba juróom ñaari mat bi ci topp mooy masaa sa bopp mais Pape xam nga obligatoire non ma mais mais jàngalekat bu nekk nag boo sañoon am élève bu jàmbaar. parce que gis nga gis nga gis nga xam nga xam nga réew mi lan ngeen war a moytu ku ngeen xamul di leen koy woowee e i i i bàyyi leen di gis nit rek di ko juger ndax Youssou mi bi teleem bi fere ci ay milliards doful ba ma fi teg xaaju guddi gi ci simplicité yow tam kon mu teg fi mbay lambar lambar koo bëgg. loolu tëgg rax ca përëm rek. mais Pape man monsieur Fall nag kontaan naa ci sama élève bii ma. boo bëggee ma àggali. non non non yamal foofu yamal foofu. li nga ma jàngal yëpp mu gis sama bopp. non non non lii moom. te maa ngi ci quatrième non moom kontaan naa ci moom. parce que jàngalekat bu nekk boo sañoon am élève bu jàmbaare. cinquième bi. problème bi nga am rek mooy doo joxe àllarba. raxas sa ñaari tànk. <laughs> loolu mooy sixième bi. loolu mooy waxas lu rijj lay ni mooy cinquième bi. waaw sixième bi mooy xam nga lan. lu parti boobu nag moom ma gën a neex. mooy bomb bi. waaw ragg bi. loolu mooy bomb bi ngay bomb loolu loolu mooy ak dalku. dalku boobu nag man sixième boobu nag man moo ma gën a neex. mooy ragg bi profité di raggu di bomb di woqatuwaale. <laughs> non mais amoo morom nag. léegi nag bàyyil xel ni. <laughs> jeudi bii di ñëw. thème bi ñu war a waxtaanee. mooy lan mooy koor. incha allah jeudi prochain. nan la ñuy wooree. bu soobee yàlla. suukaru koor yi ndax daggan na. waay muurum koor yi lan lañ war a génnee. incha nan la ko jullit di préparé. incha allah yi ñuy def ci koor gi borosu dant dentifrice yeeg yëpp. ak parfum yi ak parfum ci cuuraay yi. yooyu jeudi laa koy décortiquer El Hadj Pape. incha allah mais nag yaa koy waxtaanee.